أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokk yi ni seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may nu nu yenn ci jàmm ak salaam te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yi di leen ñaanal seen ndono lu rëy li eh, yal na leen ko yàlla sàmmal ba dara du ci yàqu di ñaanal kilifay aada yi nag li ko tàmbalee ci son excellence le président Macky Sall ba ci ki gën a suufee kenn ku ci nekk li ñu la jox pour defar Sénégal yàlla na ci yàlla jàpp ba lépp rafet lépp sotti bi jaayi seydil wujood sallallahu alayhi wa eh, di ñaanal ñi feebar yàlla na ñu wér ak jàmm ñu juum dem kaso bu buñ fa jógee ñoo ngi leen di ñaanal bu ñu defati lu leen fay dugal ndax liberté moom am am yépp moo ci dàq moom sa bopp eh, di ñaanal sunu bokki sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabar fakal la fekk leen fa te teraanga tax leen a jóg eh, ñu di leen ñaanal yal nañ dajeek bunti xéewal eh, yal nañu muccit dara bañ leen faa dal ba ñu ñibbisiwaat seen seen réew ñun ñëpp nu ànd liggéey sunum réew ndax am réew wax naa leen toujours ni leen ña fa dëkk ñooy defar réew ma ña fa dëkk it ñooy yàq réew ma kon nag yal na yàlla def lépp baax lépp jag e, ñuy ziar bu baax it e, sunu bokk yu baax yi nekk ci réew mi nga xam ne waxtaan yi ñuy def fii léeg-léeg buñ ci noppee wala bu ñu wootee li ñu ciy wax di ñu ci ñaanal ñaan yooyu yëpp yal na nu ko yàlla boole te yëg naa ci loolu loo xam ne moo ma gënal alal moo ma gënal xaalis mooy eh, nit ku la mësul teg bët xamu la xamoo ko te li mu yéene boppam mu yéene la ko bu lay ñaanal sax sa yaram day daw suy wax ak yow dëgg-dëgg amoo dara looy wax rek lu dul sant yàlla sant yàlla ci loolu mu ñu defal ndax loolu yombul ndax nit ñi léegi ñu baree baree baree bari Euh, naqaral doomu aadama lañ gën a man walla wala wala wax ko lu koy déranger wala won ko lu mu bëggut a gis wala déggal dégtal ko lu mu bëggul dégg sunu yàlla dimbalee nag tabarfakalla ay nit yu baax di ay kilifa ñoo xam ni sax mëneesu leen a tudd di la woo di la ñaanal di wax ni li li nga wax day man nga ko waxal ndax loolu mooy yëg-yëg ndax am na ñoo xam ne buñ toogoon fii sax dinañ fi wax lu gën fuuf lii may wax te lii may wax lu ci bari bés bu ne ma wax leen ko ñu baax ñooñu ñoo may woo rek wax ma ko ma ñëw waaye du sam xel euh, comme ni ma ko junjee sànq rek ci émission xale yi euh, ce matin c'est à nous parce que ñoom Nicolas ñooñu maa ngi leen di ñaanal bu baax ñu gën a avancer parce que euh, télévision instrument la boo xam ne manees na cee defar yal na yàlla boole leen ci ñi nga xam ne dañ ciy defar waaye yëf yi du dara lu dul rek nangoo sonn nangoo sonn sa sawar te bëgg li ngay def te yëg ko gëm ko parce que nit bu amul ngëm-ngëm pour nga defar ko day ça prend du temps mais nit bu gëmee dara rek buy juddu nga gis ni moom jël na yoonam waaw moo tax sax tey ñuy waxtaanee parce que nag jamono yi xam ngeen nii sunu bokki sénégalais yi nekk ci Afrique ak ci Europe ak Amérique ak fu ñu mën a ne jafe-jafe yu bari lañuy la ñuy jànkoonteel am na ñoo xam ni sax fi mu ne ñu nga bitim réew waaye dëgg-dëgg bu ñu xamoon ni situation bii lañ fay fekk du ñu dem waaye nag xamuñu Sénégal nan euh, euh, tukki naa rek dem naa Europe rek dem naa Europe te jëlewoo dara Europe amul njariñ li am njariñ mooy ñu jéem a defi pexe waxtaan ci suñu xalaat bax naka la ñuy def ba toog Sénégal di fi am teraanga parce que Sénégal ay millions yi étrangers ñu ngi fi di fi am teraanga kon nag noonu ñu def noonu ñuy def dëgg-dëgg suñu ko defee ñu nit nangoo liggéey mais mën naa am du jar nuy dem bitim réew bañ nuy refoulé wala ñu nuy teg ci ay conditions yu metti wala ñu nuy rey sax ci mbedd mi te yooyu yëpp am na am na réew yoo xam ne léeg-léeg da ngay gis étranger yëpp daw dugg seen néeg tëju ndax metti gu mu metti te ñi nga xam ni ñooy tukki parce que am na xale yoo xam ne seen rêve mooy wàcc ci avion dem Italie wala nga dem France wala nga dem Amérique jooyu xam nga dem yooyu amoon na jamono amoon na jamono waaw maa kon dégg nga ko amoon na jamono boo xam ne dëgg-dëgg euh, euh, tukki amoon na njariñ ndax booba bitim réew daraa nga fa léegi bitim réew dara dafaa nekkatu te man gis naa ni senegal gii képp ku am jom te nangoo liggéey te jub te jubal boo fi toogee di nga am sa teraanga ndax ñi koy fii am ni ñu def ba am ko bu ngeen ko defee am ko mooy du dara lu dul nangoo sonn te jub rek nangoo daan sa doole waaye bu fekkee da ngay nelaw ba midi wala ngay nelaw ba deux heures ñu yeelab añ kooku tamuy ku am fukki at ak juróom wala ñaar fukki at dafa ndërta am jom te tukki du solution pour defar sa àdduna tukki am na ñu mën a tukki parce que dama ni léegi booy tukki sax su fekkee amoo benn xam-xam bu wér a wér a wér jarut ngay génn réew mi njaay ma doxatut dara doxatu fa waaye borom bopp yi nag borom xam-xam yi moom borom xam-xam moom fu mu dem liggéey en général fi ne soudeur yeeg ah menuisier métallique yeeg menuisier ébéniste yeeg euh, bijoutier yeeg ñooñu réew bu ñu dem rek am nañ lu ñu mën a def parce que am nañu métier mais ki amul métier nga xam ne yaakaarul lulul dem ci boori plage yi di jaay njaay ma doxatu te am na aussi euh, ay conditions yoo xam ne nit bu ca bëggee dëkk dafay metti trop nekk ci réew amuloo kayit di di dàqanteeg police di nëbbutu mu métti trop léeg-léeg sax doo am loo añee te yooyu yëpp amoon nga opportunité au Sénégal mais xam nga nit bu fekkente ni yow sa yaakaar yëpp da génn réew mi rekk la mais il faut nga génn réew mi mais génn réew mi taxul nga nga yor dara taxul nga yor dara man wër naa réew adduna bépp daanaka mais mais wax dëgg yàlla li ma am jëlewu ma ko foofu damaa toog Sénégal liggéey di jaay samay dalli marakis dalli ngaay dalli kuure sax laay wax moom laa doon jaay di ci am dara di ba réaliser li ma réaliser lépp te gëm gëm Europe bi ma fay jóge wallahi saa yu ma masaan a yeewu li may jëkk ñaan sama borom mooy yàlla na nga ma delloo Sénégal ci jàmm ak salaam sain et sauf parce que d'abord léeg-léeg nga dugg ci ci benn restaurant sax di nit ku ñuul ndox moo naan sax ñun la du jaayunu neegar fii génnal waaw Espagne par exemple Foira waaw Fulcan yooyu yëpp ñu di la ko wax te as fu mu nekk ñu di ko toroxal dëgg-dëgg bu fa mënee jógee na fa jógee parce que neexut waaw man am na benn bis Espagne ñu may jaay booba sama lal gi may lal ci Playa Las Canteras euh, fi may lal ah euh, alors euh, kii bi morceau bi may lale moom mooy saab saak su ma séenee police rek ñeenti côté yi lay jël rek takk ya daw ma daw ba dugg ci benn taatu oto dugg ci ba ca ba ca ba bii ba feeñatuma policiers yi ñëw di ma diri xam naa bu doon jamono yii sax dañ koy def ci ci whatsapp beeg yooyu di ma diri ba ma génn waaw ñu jàpp ma yóbbu police nangu sama marchandise fayloo ma wax ma fa ay wax yu booba sax dégguma espagnol bu baax waaye won nañ ma ne bëgguñu maa gis seenum réew te te bu doon fii Afrique ku mu neex ñëw waaye nanu gëm suñu bopp xale yi def leen ci seen bopp ni da ngeen a war a toog Sénégal te da ngeen fee war am teraanga ñi ko fiy am bu ngeen defee ni ñu def am ko waaye bu fekkente ni génn rek parce que léeg-léeg nga dégg ñun la benn xale fay na un million ndeysaan jaar jaay jaaro bi yaayam bu or wala lamam pour dem Europe yow boo demee bala ngaa taxanaat lu jëndal sa yaay jaarob or dina am vingt ans bu fekkee nekkoo ci yeneen te yooya baaxut njaayum dorog baaxut nekk ci milieu boo xamante ni euh, daanaka kenn ñemewu maa wax loolu sax ndax ay kilifa dañ ñuy seetaan waaye xam ngeen li ma bëgg a wax mbon bu nekk nga fa pour am dara te loolu toog ci réew mee ko gën waaye dem bay fay ay 1 million pour génn senegal yow la nga doon def ba am un million tey gone gu am 18 ans mais boo continuer léegi nga am ay 20 millions mais yàkkamti bi ngeen war a ba bëgg xëy xëy xëy am vingt ans am 20 millions daal di dee rek loolu mooy dëgg nañu gëm sunu bopp te kenn bañ a xeeb y' a pas de sot métier mais lu ne nga ni rëy naa koo def te boo génnee ñu def loolu lu ko yées ah Sénégal fii am na fi ñoo xam ne tey jii ay immeuble lañ yor xam ngeen luñ tàmbalee woon dañ dañuy ñëw ba ci buntu kër ñu ni ku yor xottu saako wu jeex ku yor xottu saako wala ku yor biteel buy jaay moom lañ doon liggéeyee ba am ba am ci immeuble jàllo picc mu daan jaay picc yi ba am ca lu ne teraanga ju nekk am na ko ci mais xeebu ko waaye yow nga bëgg a xëy rek daal di sotti munul nekk yéeg da ngay tàmbalee ci suuf waaye yéeg du tàmbalee ci kaw da tàmbalee ci suuf di yéeg pas à pas étape par étape waaye xëy xëy bëgg a sotti ba ba mu jaral la sax di dugg ci ay gaal te gaal yi maa ngi dégg léeg-léeg ndeysaan nga dégg benn benn politicien di wax naan sunu doom yaa ngi dee ci géej gi mais loolu du discours du discours da nga war a wax xale yi ni leen na ñu bàyyi loolu nañu bàyyi di dugg ci ay gaal di naan dañuy dem Europe parce que yëfi dof la ñuy def dañuy xaru loolu nga leen war a wax c'est ça le discours waaye sunu doom yaa ngi dee ci géej gi c'est c'est les encourager à aller mourir davantage en mais da nga leen di wax ni loolu yëfi dof la da ngeen di xaru gaal gu war a def fukki nit ngeen def ca trent cinq wala quarante naan da ngeen di dem Espagne xam ngeen ni bu ngeen yeggee Espagne yàlla mais dee moom moo leen gën a jege ci dund loolu ngeen di wax xale yi la le vrai discours mais ici on utilise tout pour pour pour politiquer politiser ko mais gone yi arrêté leen duggi gaal toog leen Sénégal te daan seen doole seen seen morom yi jóge ci réew yi nu wër de nekk fii ci Sénégal ku ci koo ci gis mu am fi cinq liggéey na fi ay millions parce que day liggéey di daan dooleem du ko yàq. du nelawit ba midi déedéet fajar la ñuy jóg nangoo liggéey ñii nga yori puus puus ñii yor seen taabal ñii yori carton waaye loole ci la ñuy taxan di taxan ba yor dara yow ngay nelaw ba une heure deux heures nga defee ne sa avenir yow yaa bëgg a def sa bopp euh, parce que chômeur man dama jàpp ni ku ko nekk rek lu ci ëpp sa responsabilité bopp la waa ndax góor góor gu nar a am jom moom bu amee quinze ans nga gis ko muy muy yëngutu parce que war ngaa mën a def dara ah xale yu tuut yi sax ñu ngi ci mbedd mi di jaay ay ndox xale yu tuuta tuut ah yow ngay magum jëm bëgg sa baay di la yor ba nga am trent 32 ans loolu dafa métti nañu gëm suñu bopp te toog Sénégal xoolal tool yi tey jii ku la womatalu fos sax daanaka amul ci réew ma ku la womatalu fos salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. man dama bëggoon dugg en direct. acca bisimilah yaa ngi en direct. ah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. voilà man yow da ngay suivre. waaw maa ngi lay dégg de. waaye yow te te très personnage si. ah. dégguma de. ma ni. waaw. yow da nga pertinence sa ay waxtaan. wala thème bi ngay développé léegi dama si xaw d' accord ak waa waaw bisimilah ah loolu laa bëgg sax di bisimilah. waa xam nga état. xale yi di dem si géej. Mhm. di seen sago. Mhm. mais da ngay wàññi sa télé pour ñu mën la dégg dangay wàññi télé bi pour ñu dégg la parce que li ngay wax man vraiment j'aurais bien aimé anta déglu la bu baax dangay wàññi télé bi rek bismillah aca am kooku dafa dem waaw li mu wax day parce que nag euh, wax dëgg yàlla nekku nekkunu fii nag pour lu nu wax ñëpp d'accord ci man sax wax parce que loolu nee naa leen ku d'accord ak ñëpp war ngaa seetaat sa bopp waaw sama baay daf ma daan wax ni ku d'accord ak ñëpp ab rambaañ nga waaye li ma gis te yaakaar ko mooy soo gisee sa doomi réew ay xalel ndax ñàkk liggéey wala ñàkk lu ñu jàpp wala ñàkk yaakaar di bëgg a génn réew mi génn réew mi dafa am façon waaye du dugg ci du dem ni nappajoo ci ay gaal mu wér la ni gaal yi day tuuru ci àll bi gaal yii da ngeen di dee da ngeen di xaru ñooñu nag di wax suñ doom yaa ngay dee ca géej ga man defe naa ne ku am responsabilité li nga war a wax mooy wax ak gone yi ñi leen ba ñu nu ngeen génn réew mi de waaye y a moyen yoo xam ne moom ngeen war a def mais pas des moyens euh, non conventionnel xam nga gaal gu war a def quinze personnes nga dugal ca quarante ay nit yoo xam ne seen dañuy wut xaalis ci seen kaw ay passeur di jàll jàpp xale yooyu di leen euh, dugal ci gaal ba ñu fees del mu wóoru leen xale yi mën nag bu ñuy génn di dee loolu laa ne booy wax ak ñoom doo leen doo ni xale yaa ngi eh, dee ci gaal gi dama bëgg nga ni xale yi arrêté leen loolu soo bëggee génn réew mi avion yaa ngi fi yoon yaa ngi fi bato yaa ngi fi mais gaal quarante cinquante personnes soixante dix personnes ci gaalu quinze personnes ah ñooñu bu nu yeggee Europe yàlla salaamaaleykum asalaamualeykum. maaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. waaw man maa ngi lay fii Ndar saint acca bisimilah. la ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. waaw maa duggoon léegi dañ la wax léegi man wax dëgg yàlla souvent dañ lay suivre. te wax dëgg yàlla des fois dañ lay déglu ngay développé ay thèmes yu intéressant mais par rapport ak euh, li ngay wax ci gaal yi man dama wax man je suis un fonctionnaire. waane xale yi dem ci géej gi muy seen parents yi muy ñoom seen bopp jàpp naa ni du ñu leen gënal. mais boo xoolee fii Sénégal état ci boppam moo war a créer. les conditions qu'il faut pour mën a maintenir nit ñi. exactement. Mhm. waaye bu fekkee ni yow da ngay nekk fonctionnaire liggéey pendant trente ans léegi di nga amal sa bopp sax problème la pour nga dëkk. Mhm. Mhm. jërëjëf suñu mbokku ndar moom waaw adduna moom noonu la kenn ku nekk ni nga gisee mais man day maa ngi ñaan daal xale yi ñu ñu jéem a def ni euh, ñi ne ci réew mi te am jom. te nangoo liggéey te toog ci réew mi ba am fi teraanga réew mi ñii fi ëpp teraanga amu ci kenn koo xamante ni yaa ngi ko jële bitim réew bariwu ci fii la ñu ko liggéeye am na ci ñooñ mosuñoo jaar sax aéroport fii lañu ñu lépp lépp ba am da teraanga ba tey jii ñuy tukki di dem di indi conteneur te fii la ñu liggéeyee fii lañu ñu lépp su may waxtaan leeg léeg ak euh, euh, mag ñu ñoom maasum ñoom Mor gi ak ñoom ñoom góor gi Tamsir Mbuub ñoom bu ñu lay nettali fanu jaar jaar ci Tamsir Mbuub jaay daal la njëkke jaay ay daal la jëkke ba génn réew mi te booba génn réew mi neex na mais léegi génn réew mi booy génn kay da ngay wuti loo xam ni amul fa nga fa amul sa sa dëkk parce que nag liggéey du rek dañ lay embaucher pour nga liggéey déedéet liggéey ñi fi yor teraanga ñëpp dañoo nangu liggéey mais dépendre woon ci rek xaar ba ñu jox la liggéey déedéet buñ la ko joxee liggéeyal bu buñ la ko joxul demal nga wuti ko waaye ponkal du toog du toog nit ku dara dalut nga am am wér dëgg-dëgg man jàpp naa ni bu boo amee jom rek war ngaa mën a liggéey ci réew mi ndax million yi euh, étrangers yi nekk Sénégal am fi teranga mais ni ñu loo noonu rek di liggéey nan ko def rek xam nga léeg-léeg nga dégg ku naan sunu commerce bi de mi ngi ci loxoy telle communauté wala telle communauté waaw communauté wooyu boobu bu fekkoon bi nu ñëwee Sénégal dañoo fekkoon commerce boobu sénégalais yi géreel ko seen bopp mais fan lañ fan la ñuy teg taabal wala fan la ñuy ubbee bitig mais dañoo fekk nun defuñu dara bitig yi naar yee ko yoroon bi ñu demee pël yee ko yor parce que ñoo ko nangoo def mais ñun il faut que muy demee nii ah parce que bu fekkoonte ni parce que ànd kay boo fekkee borom toog ca kenn du ca toog mais comme kenn toogul fenn kenn kenn toogul fenn et puis duñu nañuy xalaat même magasin Auchan yi ni wax ak naan Carrefour a ngi ñëw sénégalais yi commerçant yi am xaalis su fekkoonte ni magasin yi Auchan def amoon nañu ambition am vision pour le Sénégal ubbi magasin yu mel noonu mu set rafet propre mais kon Auchan du fi ñëw du fi ñëw xam nga loo deful boo moytuwul nit dina jóge ci àll ba ñëw def ko yow di ko gañe mais loolu xalaat ngay def xalaat dañu war di xalaat di avancé mais bu fekkente ni nag dañoo bëgg a nekk ca bitig yenu woon rek nga xam ne jinax ya nga faak mbóot yaag lu nekk ah ka benn saaku ñu dugal ci biir mburu muy ah, waa ji la koy jaay loxo yi ñàkk mu lay daggal mburu di la ko xaral di def beurre yooyu nag wax dëgg yàlla boo sénégalais bi bu gisee espace bu propre mais mu dem fa jëndi mais buñ nu fekkoon nu def ko duñ ko def buñ nu fekkoon nu def ko duñ ko def waaye nag comme sab ànd wàcc nga ko ah di boo boo boo yàggee àll boo ñëwee fekk am ku ca tooga ah. parce que yëf yi xalaat la mais xalaat boobu mooy du du rek parce que man euh, wóor na ma ni xale bu dee ñun ñëpp la deexal parce que Sénégal benn famille la ñu amul kenn ku bëgg doomam lab géej mais amul kenn ku bëggit doomam torox mais dama bëgg wax xale yi ni leen pour seen avenir lu ci bari yéenay jël seeni responsabilité yéen yéenay am courage bañ a xeeb bañ a rëy parce que gis nga yu baree bari boo rëyee boo rëyee pour nga avancer problème la xam nga bu fekkente ni ruus nga ŋàbb ay dàll ci mbedd mi <laughs> parce que xëy na xam nañ la fi de mais yow koo romb ta muy nit ku yiw da ñaanal yàlla na barkeel ma nga lay ñaanal nga dem ba am cantine ba am magasin nga rus ko nga rusa ay daal di wër réew mi pour lan loo ciy nëbb man bu ma masaana dugg ci horaire yi di ñëw fii sax ci biir horaire bi léeg-léeg ma jaay dix paires dix paires waaye nag boo rëyee doo avancé salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo tudd ak foo nee woowee. damay leb tur bi rek. ayca lebal naa la ah, bismillah. waaw waaw maa ngi sant li ngay wax yëpp noonu la taal. Mhm. li nga wax yëpp noonu la moo tax ma woote dama déglu émission bi tey. Mhm. di dégg débat yi li ngay wax ci géej gi dem beeg. Mhm. ñuy jël gaal yeeg yëpp mën nañu am fii lu ne. ñu war a toog fii donc. li nga wax yëpp noonu la. Sénégal yi dafa bëgg lu yomb comme li nga wax rek. xam naa ne dina am ñu ma mere ci wax ji. waaye li nga wax noonu la. moo tax ma woote mosuma participer. loolu rek moo tax ma woote. jërëjëf soxna di la sant di wax ne sa émission bi nag macha allah. jërëjëf. waaw jërëjëf merci beaucoup. merci soxna su baax soosu. ok waaw noonu àdduna moom noonu lay doxe xam nga Sénégal léegi Sénégal léegi waxtaan fi sax day bëgg a jafe parce que gars yi léegi kenn ku ne wax joo dégg doo ko jàppee teg ko ci yoon. déedéet da ngay seet ndax ki nga bëgg ak li nga bëgg ak li li nga bëgg di dégg est-ce que moom lañ la waxal mais li nga bëgg di dégg ak waa ji li muy xalaat moom ak li mu bëgg di wax mën naa bañ a nuroo mën naa nuroo it mais man sax bëggumaa d'accord ak ñëpp parce que loolu ak rambaaj lay bëgg nuru parce que jubóog ñëpp nag ab rambaaj rek ko man ku ñëw nga jubóog moom man vraiment je ne waaye li ma xalaat nag dinaa koy wax keneen nit lu mu xalaat na ko wax dama ceen damay sedd sama xol parce que nag di wax ñëpp naa waaw ñëpp naa waaw euh, dëgg-dëgg man gënalu ma léeg ñu ni déet baax na ci bu ko defee nga xam ne ñu ngi lay topp ñu ngi lay déglu ñu ngi lay suivre waaye bu kenn jàppit ni lu la neex rek lañu war a wax te loolu bu buñ ko bëggee imposer ñuy wax day am problème parce que am na ñooñ mënuñu ko mënuñu loolu waaw salaamaaleykum allo salaamaaleykum asalaamaaleykum El Hadj waaw soxna su baax si na nga tudd ak foo nii maa ngi euh, dëkk fii à Dakar mais ah. damay leb bi. lebal naa la ko. waaye li may participer ci seen émission yi. deux bari na trop. bisimilah. ñu kontaan trop ci yow ci sa mm-hmm. émission yi macha allah. Mm-hmm. man sama boroom kër daf lay déglu daf la bëgg ndeysaan. ndeysaan est-ce que. wallaay Tall. wallaahi li nga wax yëpp dëgg la. Mm-hmm. Euh, gis nga euh, sunu xale yi. ruus liggéey yenn liggéey mhm. moo leen yóbbee lu bari parce que am na ci ñoo xamante jaboot yoo xam ne sax ñooy dajale la ñu am jox seen doom pour mu jaar ci géej gi mhm. te loolu mi si banaaru laay la kenn buggu ko man ci sous région bi laay voyagé di dem di ñëw mhm. mais am na dëkk bu ma dem bi ma jëndee sama bagage yi ba pare may seet ku ma ko yenul mu ne ma déedéet parce que loolu wóorul xaaral ñun am na ku ñu yenul gis nga bi mu woowee xale bu góor bi ba mu taxaw sama kanam mu ne ma ne ko ana yenukat bi mu ne ma kii la. Mm-hmm. laaj damaa waaru ci yàlla. ndeysaan boo gisee waa ci taxawaay da nga naan kii bureaucrate la. Mm-hmm. waaye ndeysaan mu daal di ne mu daal di waxanteeg moom rek mu daal di yëkkati kii bi. Mm-hmm. ma ne ko lu ma koy jox mu ne ma trois cent. gis nga bi ma egsee sama hôtel téeméer dërëm laa yëkkati jox ko. mu daal di koy xool ndeysaan ne ma merci madame merci. xoolal gis nga sous région bi. ba ñu ñëw liggéey dara dara dara koo ci gis ma nga yenu ay bool ma nga tegle ma nga lu ne ma nga ca dugg waaye fii à Dakar hmm. sunu xale yi koo gis ma nga sol kilootam hmm. def semisam hmm. nelaw ba mu naaj naan kafeem yore cigarette ah? ah bu bàyyee ba guddi nag mu dugg ci dëkk bi ah waaw di këf yëfu jàmbur yi di jël yëfu jàmbur yi di dugg ci naka sodul noonu vraiment ñoom l'argent facile la ñu bëgg Sénégal nanguwuñu sonn. parce que gis nga lii fii euh, Guinéen yi ñëw di ko fi liggéey. Mm-hmm. ñun sunu xale buñ ko nangoon a liggéey am li Guinéen yi am. wallaahi Guinéen boo gis mu yore pousse pousse fii ma nga yor immeuble euh, Guinée. voilà mais sunuy xale ñoo nangu ñoo am euh, complexe. complexe voilà. complexe. Mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne am nañu jom ndax boo jaalee ci autoroute bi mhm. billaahi boo bëggut a jënd sax di nga jënd mhm. Mhm. ndax boo gisee xale yi ci autoroute beeg naaj bu tàng bi élage ñuy tàllal di daw bu leen ku leen ne ñaata nag ña ngay daw topp ca ñooñu ay nitu jom lañu wax dëgg yàlla day yàgg rek waaye dinañu am teraanga ah <laughs> mais vraiment am na ci sax tamit ba ci jeeg ji dañu yeewu sangu ba set teg la seen i tànk. Mhm. nangu ñoo sonn nangu ñu dara topp sa doom may ma may ma may ma may ma da dem ba doom jooju sax da lay jéppi. jéppi wallaahi bien que yow yaa ko jur. wallaahi jéeg ji dañoo war a génn ci kër yi. Mhm. wut lu ñu def. Mhm. mais teg la say tànk teg sa boroom kër lu mu mënul wala nga teg ko sa doom. Ah. wala di ñaan di ñaan di ñaan ba ñu mujj. di hmm. xàmmee sa numéro di di la dugal liste rouge di la di la di la di la. di la bañ a jël sax ngay mere nit ñi te fekk yaa ko yóbbu sa bopp doomu aadama tànk yaa ngi wér di man a dem hmm. da nga war di dem mooy yoon di liggéey wax dëgg yàlla man daal lool laa amul lu may wax El Hadj jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup soxna su baax soosu daa lebu turam nag mais lebal naa la ko mais jërëjëf àdduna moom ku ku am jom daal euh, dara manqué la waaye nag bu fekkente ni da nga da ngaa ñàkk jom parce que yenn yi ñàkk jom la mën a tudd ndax ponkal bu toog ay waay waajuram di ko yor loolu ku am jom du ko def ñi am jom ñëpp ba ñu doonee xale yu tuut la ñu commencé wut wuti seen autonomie bopp ndax euh, nit bu bëggee ñu respecté ko dëgg day participer waaw gone yu nar a am jom yi ba ñu amee ay 15 ans lañ commencé di dugal seen loxo ci dépense seen baay wala seen yaay waaye toog rek ñu di la yor bu guddee ngay dox ka naa ne ataaya ka agressé ba 4 heures cinq heures nga soog a tëdd salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Samba Gueye Touba. ay sëñ Bamba. maa ngi Samba Gueye. Ah, Samba Gueye waaw ay ca bisimilah sëriñ Gueye. li li leen laa lay wax. laa lay waxaat sax ñun juddu nañ suñu kër ba niñ toll mhm. sam papa lim ñu gën a may ci xaalis yaakaar naa ñaar fukki dërëm la mhm. bi ñuy jàngee ba bàyyi jàng dafa ne kenn du nekk sama kër di defal di defal lekk ceeb te di te uti woo métier waaw waaw ñëpp jàng métier wallahi suñu kër mën nañ treize benn embauchement la am mhm. ñi seen ñëpp ñoo yor seen ñoo yor seen bopp si seen métier jeex na jeex na feek jeunes yaa ngi toog mhm. nangu ñoo jàng métier mhm. yaakaar ko ci biir avion tukki yii mhm. dinañ dinañ gën a tardé dëgg la wallaahi nit il faut nga nangoo jàng métier soo jàngul jàngal métier jàngal métier wallaahi métier sax ak jàngal métier <laughs> métier soo jàngul métier moom soo yaakaar si taatu garab yi ko gën a nga ne ko may ma cent franc ma jënd ataaya ba pare nga bëgg a yéeg avion dem tukki ñëwaat. Ah. waaw soo demee tukki bi ñëwaat te amuloo métier foo lay def. looy def wallaahi. looy def dara. sëñ jaay rek nga ko yaakaar te tubaab yooyu la dàq jaay. ñoo léegi kay ñoo leen ñoonu dàq jaay. waaw. Mhm. waaw loolu loolu loolu moo amoon sama participation ci bés bi tey. jërëjëf Serigne Samba Gueye. waaw jërëjëf maa ziar bu baax. ñoo ngi delloo ziar di ziar waa Touba yëpp di xala ziar xalif général Cheikh Serigne Mountakha Bachirou Mbacké. di ko ñaanal eh, yal na fi yàgg lool Mbàkke te wér niñ ko daan ñaanalee xalifa yu sëriñ Touba yëpp di ko ñaanal xalifa yu réew mi yëpp di ñaanal aussi sëriñ Bay Si Mansour xalif général des Tijanes di suñu mbokk sax laa mën a wax ndax eh, Tiwaawan moom suñuy bokk lañu eh, di ñaanal sëriñ Maodo moom Alaaji Abdul Aziz Si da baax sama xarit nga xam ni wax dëgg yàlla saa yu ma ko gisee rek damay damay damay am mbégte ci wax ju rafet ji ci ñaan yi Eh, maa ngi koy ñaanal moom yàlla na ko yàlla may wér bu bu baax a baax a baax suma xarit la am na bis fii ma sol mbub mu rafet na leen moo ma woo ni ma kay jël si ko waaw ah, te xam nga doomu alaaji Abdul Aziz si dëgg dëgg kooku uh, sama xarit la war a doon ndax baayam alaaji Abdul Aziz dafa daan ñëw ci sama baay di ñëw ba këram waaw maa ngi fàttaliku ñoom ñaar ñu toog di defi waxtaan waaw ma di ko dégg ba ba xaleel laa maa ngi am ay douze treize ans booba alaaji Abdul ngi jógee jógee fas Touré yor ab idée di romb sama baay ci boutigam rek pënë bi kalaate <laughs> loolu histoire bu bu rëy a rëy la salaamaaleykum asalaamaaleykum. maaleykum salaam Tall Ngol Ngol. waaw noo tudd foo nii woowee. maa ngi woote fii Ngaye Mexe. ah. Mexe. ah yow sama mbokk nga bisimilah. waaw loolu ah Maguette Diop Tailleur. ah Maguette na nga def. sant bi wér-wér. ah waaye sama mbokkum ngaay moom warul woon a dagg waay Maguette Diouf Tailleur wax nga dëgg de waaw waaw xam naa kooku suñu suñu dëkkandoo la ngaay mexe mbokk ñooñu ñooy mbokk yi boo demee mbokki mbokki mbayang caam yi la parce que ngaay bari na waa kuuréeg waa waa kuuréeg joor ak kuuréeg ndombolox ak kuuréeg gàtteñ ak kuuréeg mbataar ak kuuréeg njawaar ñoo fay ñoo fay ñoo fay ñoo fa nekk di liggéey xam naa mbokki mbokki mbayang lañu waaye daal lu mën a am moo di nit ki su la yàlla mayee nga am xel may la wér ci yaram laagalu la jox la cër yu mat sëkk dëgg-dëgg boo amul dara lu ci ëpp yaa ko xañ sa bopp xam nga léegi boo demee ci kër yi ñi jàngi sax ca école ba ba yor ay diplôme ñi jàngi woon métier menuisier métallique ba mokkal ko ñoo leen yor fi mu ne nii parce que gis nga Afrique ay métier ñoo ko yor mais du ay yeneen affaires yi am na mën ngaa jàng ba sori waaye foo koy exercer salaamualeykum. waaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd foo nii woowee. xanaa sa xarit Seydina Yusufa Seck. ah Yusufa na nga def. moo lay siyaar bu baax di la bëggee rek. jërëjëf Seck. di la ñaanal yàlla ni yow itam yaa ngi bay sawaar ci tool bi. est-ce que est-ce que. kilifa yooyu nga tudd ñoom ñëpp ñoom ngay waxal. wallaahi wallaahi. ndax fii nga toog ñoo fi waroon toog di wax ne ndax ñoom. ay ay ay yonent lañu rek mooy dañuy jottali waxe gaa yu baax yi. Ah, ah, wax nga dëgg. te yow tam ci nga nekk ndax yaa ngi soññi ñëpp. Mhm. as gor mhm. bala ngay nekk gor dangay liggéey. dëgg la. wax as góor day am lu muy liggéey. waaw ah, as góor. Mhm. yàlla euh, ku si na loxo bi féete kaw. moo gën a baax. dëgg la kon yal na yàlla suturaal. amiin amiin xanaa xaw ma ni yowmal xiyaam lépp la yàlla réglé. lépp lay réglé de. kilifi diine yeeg maanaam président yeeg yëpp kenn ko nekk loo yoroon yàlla dina la wax ni la la soxla nga yor ko. dëgg la de wallaay wax ak loo ci def la moo soxla nga def sa dërëm bi foo ko jëlee. wallaahi wax nga ndaw ji ko jeexale. wallaahi. ak kàttan gi ma la joxoon noo ko doon utilisé. wallaahi wallaahi. kon ndax ñëpp war nañu ko gëm ndax. ndax ndax ku gën nelaw yeewu rek. Mhm. yéen yi tey tey la war nga gën dee. dëgg la dëgg la. waaw jërëjëf. kon yal na la yàlla defal sutura. jërëjëf Seck jërëjëf. defal ko ñëpp léegi nag yi ma ci duggoon nit ñi yàgg nañu ko boo amee kay njaboot deel jàng inna a'taynaka al-kawsar di ko tibbi ci bopp bi. Ah. waaw même mu déggee sax dana jub. inna a'taynaka al-kawsar. waaw même yow ku mel ni yow nga xëy na ngay wax nit ñi. ah loolu moom tabaar fa kàlla kon nag yéen a ko déggandoo Roqaya Mbooj gisuma la woon Roqaya Mbooj moom Mbooj ji waalo la jóge waaye <laughs> xam naa waalo moom dëgg dëgg defe naa mosu faa jaar waaw mosu faa jaar d'ailleurs wax naa ko wax naa ko Mamadou Makhtar Cissé parce que du Makhtar Cissé sa mbokk ndax yaayam Mbooj la san waaye ku sant Mbooj dëkk waalo cosaanoo fa te mosoo faa jaar man daal Roqaya wax maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla gindi te yenn yi problème la quoi. problème la ma ngay tontu nag naan danga ma bàyyi ndax am pànk la moo xam ne fi mu ne nii boo demee aw koketam lay summi waaye man bu ma paree fa may jaar ba réer la doo ko gis mais demal waalo nag xam nga demal seeti say maam ku la koy wax kay kooku waroo ko mere man lu baax laa lay wax dëkk waalo naan mbooj laa sant di fëgg sab dën te mosoo faa dem loolu it problème ah mais gars yi nan góorgóorlu rek xam ni comme ni ko Serigne sekk waxee rek mooy maanaam teraanga ku ko da ngay nangoo liggéey waaye te xeeb bi li ko lal mooy ak rëy parce que boo rëyee ndax rëy baaxul xam nga yàlla bu waxee ci alquran ni ñi rëy amuñu ci man dara waaw xam nga li ma la ñi nga xam ne dañoo rëy orgueilleux te rëy baaxul gis nga rëy day feebar sax nit nit day woyof te nangoo liggéey nangoo sonn gis nga boo woyofee mais léeg-léeg bu ñu lay nettali par exemple euh, ñoom Alaaji Njaay ak ñoom Yuusu Nduur seen seen démb bañ la am léeg-léeg nga dajeeg nit mu naan la alaaji maa ngi ko xam ba mu yoree appareil photo mais xoolal loolu ak xoolal tey boo duggee fii ci biir biir 2S li nga fiy fekk ci ay bagages ci ay affaires aduna bépp tabarkalla di la xool nga defee ni waa bu toogoon rek naan day xaar eh, état embauché koog état jàppale koog eh, mais ko du dem dafa ñafe jógee à la base ba dem ca kaw ah, mais loolu dafa am solo. waaye nag bu fekkente ni par exemple yow da nga bëgg xëy xëy rek sotti xëy xëy sotti wax dëgg yàlla man gisuma ko fenn nit day nangoo liggéey ba pare bañ a xeeb dara te te woyof woyofal boppam boo woyofee rek lu bëree bëree bëri dana la yomb mais bu fekkee rus ngaa def lu ne foo jëm salaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw sëriñ bu baax bi nootu tudd foo nii woowee. Euh, imaam Nazir Gaye Kébémer. ah imaam suma ma xarit. bu ma jaaratee Kébémer moom fokk ma jàdd nuyu si la incha allah. maa ngi ci kaw tali bi yomb naa xam incha allah. maa ngi ci kaw tali bi jeex na bu soobee yàlla yow moom jàpp naa la xarit. bisimilah dëgg la dëgg la dëgg la na nga def. maa ngi sant sunu borom. maa ngi nuyu sa auditeurs yi bu baax. ñu ngi lay fay bu baax gay euh, yaa ngi ci lu am am solo te mooy liggéey. Mhm. Euh, xam nga ñaar rek fi nekk benn ngay liggéey mbaa mbaa nga la jël. ndax nga dëgg de. te te te kuy lajal rek dañ lay lijjanti. dëgg la. yeneen tuuti laa si wax ne yonent yàlla Daawuda euh, euh, ñaqu loxoom moom la daan moom la daan lekk. ñaqu loxoom. waaw. parce mhm. bu masaan dégg nit nee saggee nit bëgg ko lool. Mhm. ñu nuyoo moo ma joxee loxo bu loxo yi nooyee rek nga gis ne may taayee la ci moom. Mhm. bu loxo yi nooyee. waaw dina am lu xattaab loolu daan wax. nee na xam ne liggéey eh, bi ci topp mooy gis nga eh, dañu wax ne aadama suñu maam aadama ji junniy métier la ko yàlla joxoon. Mm-hmm. xam nga nit ñi dajaluñ junniy métier wax dëgg yàlla. waaw wax dëgg yàlla. te koo dégg mu naan liggéey amul liggéey amul état bi nangam mais junniy métier lañu wàcce ci kaw suuf. gis nga de da war a dem ba junni métier boo ko jeexalee amoo amoo amoo liggéey nag nga door a wax ne amoo amoo liggéey. wax dëgg yàlla junni métier day ku ci ku ci am benn liggéey. waaw wax dëgg ku ko wër bala moo jeex di nga am benn boo liggéey. wax dëgg yàlla. yenn yi moom dafa bëgg lu yomb yi ngeen di wax rek. da yu yooyu day moo yàq lépp. ah dëgg la dëgg la bi ci topp mooy yaa ngi wax sànq euh, gis nga bu nangu comme li nga wax léegi d'accord ak ñëpp. bu ko hmm. wër ndax doo ko am. déedéet. Hmm. Seydina Ali ci jàngaleem daf daan wax nee na euh, kasaratu kasaratu tifaaqi nifaaxun mhm. nee na nee na d'accord bu bëri naafeq rek la naafeq rek la kay waaw nee na laa nalu lu naafeq rek la wallaahi ku ñëw nga d'accord ak moom ku ah. ñëw nga d'accord ak moom ak naafeq rek la kese <laughs> de loolu laa gëm waaw ndox ndax dëgg ak caaxaan dañuy lëwtoo ñoom ñaar bokkuñu fuñ jëm déedéet wax dëgg yàlla waaw boo nekkee ci dëgg mm-hmm. ñuy nekk ci caaxaan dootoo leen jiblu dëgg la dëgg la boo nekkee ci caaxaan jëlooto leen jublu wallaahi wax nga dëgg gay kon vraiment man liñ bëgg a jël ak fit bi nga koy defee ak euh, xam nga am na ay jafe-jafe yi wax xam nga am na ay ay ay mét yi jëm waaye da koo ñeme mhm. ndax dëgg moom jël liñ boobu rek na la ne yaa ngi ci am am na ñoo xam ne neexoo leen waaw loolu koy wér na moom mhm. waaw mais loolu dëpp ci Seydina Mouhamed doon yow loolu découragé wu ci dara loolu ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax jërëjëf jërëjëf gay jërëjëf ndax man vraiment ba ma dalee wax ci rajo léegi mat na fanweeri at waaye ligne bi man moom laa jël. dëgg la dëgg la dëgg la. waaye rek wax li nga xam war a nekk. wallaahi wax nga dëgg. Eh, li ci jëf nag kenn ku ne am nga sa gis waaye daal ni nga téye sa émission bi ni daal continuer ko noonu rek yow. incha allahu noonu lay def de. waaw jërëjëf ñu ngi lay nuyu baax di nuyu waa DSS kilifa gi yëpp. wallaahi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam Imaam Gaye ñoo ngi lay euh, ziar bu baax a baax a baax di nuyu waa Kébémer yëpp waa Kébémer yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar kooku moom euh, kuy wax lu ma bëgg la kuy wax lu baax la kuy wax lu lu yokku nit la parce que euh, neex ñëpp moom dëgg-dëgg ku ko bëgg sax dafa mel ni danga nga xaw a mbaaj te ñun bëgguñu lu naqari nit bëgguñu lu neex nit waaye nag bëgg lu neex nit it bay wax lu nu gëmut it du nu ko def parce que nag réew mi léegi dafa mel ni dañoo tere nit ñi sax ni leen bu leen waxati dëgg waxal li ma neex xam nga boo bëggee dégg li la neex nag da ngay woosab géwal jox koy xalam ngeen dem ba ca sa biiru saal nga tëj ko mu la naan sa maama fi def lii waxal la lu sa maam def lu baari ak lu mu deful lépp mun la yaa ko def loolu mën naa ne waaye nag fii moom insha allahu lépp lu nu fiy wax dañuy teg kaamilu alquran ci sunu kanam xam ni lii yàlla dana nu ko mas a fekki te dina nu laaj salaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum waaw kooku dem na li ñuy wax daal nañ ci seet yàlla te yàlla rek tax waaye nag euh, am nag benn gis-gis bopp fokk waa réew mi nag nu nu ba gis nga dëgg gennu dëgg la dëgg amul parti déedéet dëgg amul parti dëgg amul diine dëgg amul amul tarixa dëgg dëgg rekk la dëgg rekk la dëgg nag dëgg dëgg ñun ñëpp ko bokk bu fekkente ne nag gi nga bëgg dégg mooy gi la neex ah googu dëgg dootul ak dëgg xam ngeen ni sunu sunu maam ju baax ju ñuy wax lamin Guèye daan na wax naan le woy n'a de sens que quand celui qui le dit a le droit de dire noo waaw du tekki dara mukk lu dul ki naan waaw am na droit yi ni déet loolu nag wax dëgg yàlla mooy dëgg nañu acceptante d'accord divergence mënul ñàkk waaye na kenn ku ne nuy nuy yaatal suñu dënn yi di di di accepter tel que nous sommes parce que kenn ku nekk boo xoolee sa sikk rek daanaka doo tal sikku su jàmbur na kenn ku ne audité boppam rek bu ku ne audité boppam rek di nga xam li nga war a def di nga xamit ni li nga am yow daanaka ku ne mën naa noté boppam sax ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo ne woowe euh, Ndar laay wootee de. ay ca bisimilah sama mbokkum ndar waaw xam nga damay wax ci mbiru euh, métier mm-hmm. li ngeen di wax ci métier métier lu am solo la ci doomu aadama mm-hmm. te xam nga nee ñu ñun métier boo waroo ci am benn rek mm-hmm. danga ci war a am lu bëree bëri mu waral même boo nekkoon ci service tey ji buñ dal wàññi yow ma am métier mu bëri yow lañ faa bàyyi waaw parce que remplacé nga lu ma ñaar wala ñetti nit ka nga xam ne benn benn métier am moom la ñuy jëkk wàññi mhm. waaw mhm. loolu participation ci wax la rek ci li nga wax ci métier mu bari waaw métier ni mu mhm. jërëjëf suñu mbokk moom wax nga dëgg de léeg-léeg gis benn entreprise ñuy wàññi de waaye waa ji nga xam ne mën na plombier mën na électricité man na tuuti mason mën naa dabb daaxi loo ñëw mu man ca dara en général dañ koy téye ndax moom <laughs> liggéeyu ñett wala ñeenti nit lay def tey doomu aadama nag dëgg léeg-léeg nga man sax loo xam ni jànguloo ko waaye danga koy sawar da ngay sawar dangay sawar di ko def waaw yu baree baree bare nit xam nga léeg-léeg gis koo xam ne turu su ndaw këram sax day woom maçon mënul jënd ciment xamul lu ñuy mélanger ciment beeg suuf bi buñ ca waree boole tuuti xeer mu boole ko defar ba mu rafet waaye da eh, woote rek dara daal jéemoo ko quoi te métier dafa baax ci nit fi ne Europe ña koo fa gis muy mos dara rek dafa faa yóbbaale métier waaye ñu yaakaaroon dem ca plage yaag yooyu ah ñooña moom yal na leen yàlla may dara rek ñu daje xéewal mbaa ñu forub kalpe waaye jële fa dara jële fa dara yombatul de parce que léegi métier rek a fay liggéey man xam naa am naa benn jarbaat boobu ba mu fay dem yóbbaalewul métier ba mu demee fa la jàngee métier tool yee la fa jàng tey jii ci tabarkaal la am na ci lu ne te foofu la ko jànge yow nga nii doo am métier ah, lu ñëw nga xeeb ko di nelaw ba midi ñu baree baree bari ñu ngi naan amuñu liggéey du ñu gaaw am liggéey liggéey dangay sawar pour dem wuti ko pour dem wuti ko ñenn ñi fi boo demoon boo demee ci tool yi suñu bokki baykat yi euh, rooj nañ ba noppi am na ñoo xam ne fi ne farooguñu ndax amuñu xale bu leen womatal fas wa pour ñu faru xale yaa ngi fii ci ndakaaru di wër bu ñu jaayee ba ngoon peut-être ñu am 1000 francs lekk téeméer ba ak ñeen fukk ah au lieu nga toog parce que ñi doon bayal seen baay ca tool ya ba seen baay sonnul mais ñooñu tey jii yàlla di defal na leen teraanga ba ñu waree dem liggéey liggéeyi nañu mais même bu ñu daan nekk ndakaaru sax bu ñu li bu ñu nooree di di taxaan ci noor bi ba ba ba ruuj ba noppi rek nu ñibbi la nu am ñu jënd ciw jiw jënd ci yére dem bay yóbbaaleel dara sunu sunu waa kër waaye bëgg toog nag far benn yoon dëkk boo dem màggat yaa fa nekk jigéen ñu màggat ay màggat donc ñoo ne ci àll bi gone yépp abandonné nañ tool yi parce que gëmuñu ko te dañoo xamut ni benn bërigoob kemb benn bërigoob kemb boo ko bayee ci nawet bi yow gone gu am jom gi te juddu ci tool yaru ca bu ñoree mën nga cee am moo ngooñ mi mën naa mat million presque bu nangoo te te trois mois la trois mois nga am minimum huit cent mille ba pare nga ne du ma ko def ko parce que ñëw nga ndakaaru sa morom yaa ngi koy def parce que toppandoo bi lañ war a bàyyi toppandoo loo gis nag lu ñu gën a lor mooy lu ñeen ñi nekk ñëpp fekk leen ci nan bàyyi toppandoo toppandoo bi nan ko bàyyi lépp même boo xoolee sunu sunu média yi sax ñoo bokki programme heure yi heure bii lii lañ ci def ñeeti la ku nay roy sa moroom quoi di ko toppandoo ci wala non non yow boo matee sëkk am am le contenu mën ngaa créer sa yëfi bopp lu nuroo wut ak la ñeeri def te ñi gën a avancé sax mooy ñi ñi ñi différencier wu ak ñenn ñi mais boo melee ni ñëpp kay ñëpp la même chose dans les journaux la même chose ngay lire dans tous les journaux parce que amul ku tracé beneen ligne ligne bu gën a boo xam ne day indi yeneen rénovation mais mais boo xalaat pour nga avancer problème la mais ñun dañuy toppandoo loo seen sa moroom ne ca nga ne ca yaay doomi diw dem na yow boo ko waxee sa yaay sa yaay na toogal sa baay sa baay déegul mi ngi nii di dund yor nay toolam yori fasam yor aw jiw toogal nga liggéeyal sa baay moo ëpp njariñ nga dem ndakaaru di di lambar lambari yi ñu lay daq ak ramas léeg-léeg wata fel la ah ngay xatal dëkk bi fa sona leen te yow nawet ñetti weer la nga bay ci huit cent mille mais bu yàggee nga am dara mais gëmatoo ko li nga gëm mooy jaayi mbuus ci mbedd meeki affaire ba am xaalis foo koy jële bu ñëpp bu yow buñ ne quatorze millions lañu treize yi di jaay <laughs> treize millions yëpp bëgg a nekk jaaykat kat moo koy jënd dama ah? waa ji waxoon ni ma Cheikh Tidiane nee na bis bu nu demee ba euh, sëriñ si ëpp taalibe yi <laughs> waaw bu sëriñ ëppee taalibe fu nu jëm nañu seetaat yëf yi te xam ni nit boo amee jom rek war ngaa mën a fexe ba am dara waaw am na ñoo xam ne dëgg dëgg fi mu ne nii ñoom takk nañ seeni bagage dellu nañ dëkk ba bu ñu demee di bay farul seen baay farul seen yaay farul seeni ndijaay bu nawet bi tawee ñu ji bala ñu moo mat un ay et demi ñu ñëw fii ndakaaru fekk la fi di def lañ doon def ni la mbay ma yegg na un mois et demi deux mois maximum mbay ma yegg na la cay des mooy buddet ba te maire yaag paayang fa bàyyi dinañ ko man di buddet bu déqi jotee nga dem déqi naaf ah, dajale naaf bàcc jëri farmangu roñ sam ngooñ roñ sa gerte jaay bu la neexee deux cent dix la ñuy ja jaayee jaayee kilo hmm? ton bu ne deux cent deux cent deux cent et quelques mille kooku kay boo jaayee trois tonnes muy si muy muy muy muy six cent et quelques mille bu ko defee xam nga loolu ah, ah, boo bu ñu la luyee woonu cantine sax man nga xaa def mën nga koo def marchandise nga bëgg a toog ndakaaru yow trois mois yooyu sa morom moomu dem bay ci gerte six cent mille yaa ngi ndakaaru dajale woo fi cent mille francs mais gëmatoo liggéey parce que lu yomb li ñu bëgg il faut nu arrêté ko ah parce que aw yaram day day day sonn yàlla dafa wax ci alquran ne inna linsaana la fii kabadin dama leen a bind pour ngeen di sonn xam nga ku bëgg a noppalu yaa am problème parce que àdduna coono la àdduna ay coono la waaw defe naa sunu woykat bu mag bi woy na ko sax ay coono la ku nanguut a sonn am nga problème ah loolu nag il faut que ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel te xam ni gone yi dugg gaal réglé seen problème waaw dee ci gaalit it seen i way jur taxul loolu taxul woon ñu ñuy sonn ci yéen seeni i way jur dañ doon sonn ci yéen pour bu ngeen màggee ngeen aw leen boo leen leen bëggee aw nag da ngeen di tegu ci yoon yoon yi moo di nangoo liggéey nangoo liggéey boole kook jub te bañ a xeeb te bañ a yàkkamti waaye vingt million euh, ci ku am vingt ans am vingt million loolu loolu mënul nekk mais gaal yi moom arrêté ça arrêté ça te xam nga gone gi nga dégg ñu naa la daa fay benn passeur cinq cent mille pour mu dugal ko ci gaal yóbbu ko Espagne mais cinq cent mille yooyu fa na nga doon def ba liggéey ko <laughs> boo ca continuer yor dara mais xëy-xëy bëgg a rich loolu ab sàcc rek la mën a dal waaw sacc donc nga mën a def xëy-xëy bari la waaw waaye liggéey moom da ngay dajale tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti yooyu bu yàggee mooy doon yu bari bari waaye bëgg a xëy rek sotti damay naan damay dugg ci ay gaal d'accord ma ak benn gone buy dugg ci gaal d'accord ma sax ak politicien bi wax gone yi naa leen sunu gone yaa ngi dee ci gaal yi ce message là il faut l'arrêter neel xale yi nañ arrêté dugg ci ay gaal du pour gaal gaal du pour voyager waaye nun comme da ngay toppandoo di nga toppandoo lu ne ndax sénégalais moom lu nit ne def ñu nga ca toppandoo ak dañ kumpa usine bi doon lakk fii gis nga ko ña dee ñëpp dañoo dégg téel rek daw wuti ca nan ba nit balaa daw day xam lu koy dax ah yaakaar naa nag léegi nu yëg si fi ñu war a tàggatoo bu ko defee nu xajal soxna Mbayang ci émission kër gi waaw euh, yaakaar naa soxna Mbayang noppi na nga wala ah kon kon kon waaw kon nag boo ko defee rek ñu jéem a yem fi te jéem a ñaax sunu sunu gone yi ñu jéem a gëm rek ni ku nangoo sonn tey gone te jub incha allahu di nga réussir te ngeen wuti ay métier parce que métier moo gën a wóor actuellement baax na sax ba maa ngi dégg état bi di créer ay écoles yoo xam ne profession lañ fay jàng métier parce que Sénégal ñun li ñuy jàng dañu ko war a adapté li ñu am. ñun li ñu am actuellement lii xale yi war a jàng mooy technique gu pétrole technique gu tool yi bay mbay mi technique gu napp gi technique gu càmm gi waaw càmm googu nga xam ne moom sàcc gi yàq na ko far waaw sàcc gi moom dëgg dëgg tabaarkàlla macha allah waaye nanu wuti ay métier waaw kër goo dem ña fa am métier actuellement ñoo yor kër ga du ña yor diplôme de ndax léeg-léeg nga yor diplôme boo xamante ni réew. gaa yi li ñu gaa ëpp plombier lañ soxla nga ni ko philosophe la <laughs> xam nga moom soxla wutu philosophe ak yooyu soxla wut ay mathématicien moom mën na mathématique bu yàgg bosam li mu soxla mooy ku mën a liggéey ku ku nekk ku nekk tôlier bu wér wala nga nekk menuisier wala nga nekk mécanicien bu wér di ko defarali wataam camion yi yi transport yooyu la soxla soxlawul ñoo ñu naan intellectuel borom métier lay wër loolu nag wax dëgg yàlla dafa nekk lool ah il faut ngeen góor góorlu ci rek te nangoo liggéey parce que bu ngeen nangoo liggéey te bañ a xeep yaakaar naa ne di ngeen am dara bu ngeen xoolee ci gan ñi fi ñëw li ñuy daj ci mbedd yi tey ba yor dara ah mais buñ leen ko yóbbul waaye dina am na ñooñ boo demee fi ne yewwooguñu yewwooguñu xam nga ponkal mu am vingt ans di nelaw ba heure bi sa ndey sa baay di xëy fajar di liggéey di la di la ci dundal yow naroo am jom naroo am benn jom te koo dégg ñu naan la day gone daa ñàkk jom rek ndax day gone yu bari moom mooy ñàkk jom rek la baay Baye Bassirou Seye doon wax naan at mu ne ngay gone mënuma koo dégg waaw nañu nañu soppi te te gëm liggéey te gëm euh, ñi war a dellu ca tool ya nañu dellu ca tool ya ndax li ngeen di def nii am na ci ñooñ boo demee seen kër baay fi ne da ngay yërëm seen baay bi leen juróon seen baay bi leen jur actuellement mook seen seen maam ju jigéen peut-être maam Njaay woo mat fas wa baay ba di kundung kundungi ndeysaan mu métti lool ngeen bàyyi leen seen bàyyi di bay tool ya xam nga jo jooju dugub bu ñoree cere jooju bu ngeen ca lekkee amu leen jom bis bu ngeen demee ca dëkk ba ñu togg ca cere def ca gerte ga ñeex ma bu ngeen ci lekkee amu leen jom billahi amu leen jom ku am jom dëgg du bàyyi bàyyam ca tool ya ñëw fii ndakaaru di wandang wandangi da ngay dem nga liggéeyali sa baay moo am solo képp ku ci am ngërëmul waajuram ca wallahi boo ëllëgee loo yóotu di di ci jàpp ñu baree bari li leen gàllankoor mooy ñàkk ngërëmul waajur gone goo xam ne mënul dara ci baayam mënul dara ci ndeyam loolu yàlla ci yàlla musal kon nag ñu yem fii rek te euh, euh, nuyu soxna mbayan Adja Mbayang naam caab euh, naam taal na def sant yàlla bu baax tey nuyu waa Pekes ana soxna petaaw soxna petaaw mi ngi toog ah moom day diggee rek te du joxe <laughs> waa mi ngi ci waajtaay bi de géer la nag pourtant doonay ma ba joxu bala de ah? donay mabba jaxu bala te te ñooñu dañoo ah, gaaw loxo mabba de waaye man nag am naa ci mabba loo xam ne ndax tey ji boo demee kër mabba ah sëti mabba yëpp su may xarit lañu ndeysaan ñoom Mamour Ba bi nga xam ni moo yor kaddu waa kër mabba jaxu sama xarit xarita Mamour Njoogu Ba mm-hmm. euh, euh, am maat Mamat Ba directeur u APROSI suma xarit la ndeysaan euh, Latif bali sëtu xam nga sëtu Maba Diakhou la moom it. Latif Koulibaly men waaw waaw ak Malick Roqiba bu AFP. ndeysaan sumay xarit la ñu xam nga Maba nag. Mhm. dafa am ak relation waa Kajoor. waaw ndax Longoor Mbay la jàngee alxuraan. macha allah alhamdulilah waaw kon Adja ñu bàyyi la kër gi xam naa kenn ëpp lay problème nag yow. waaw waaw loolu la waaye nag euh, gis nga rek saa su rek bu ñu koy partagé wu. nga dox sa wàll ñu dox suñu wàll. Euh, ku mel ni yaay kan Diallo mi ngi toog nee na mi ngi lay seetaan bëgg dugg ci ligne bi. moom tamit euh, di rafetlu li ngay def yaakaar naa ni ni ñu koy jokkalante rek. am na solo ci programme 2STV yi ci teewaay yu bees yi plateau yu bees yi. Mhm. macha allah ni nga ko waxee ci sunu bu toogoon di wër di eneka palaaline ak yaakaar état heure bi du fekk fii ñu toj nekk fii wala boog ci yeneen i loxo la ñuy nekk kon macha allah yàlla na ko yàlla lafal ca taal. kon nag kon nag léegi léegi. kon nag incha allahu bee suba rek. kon nag salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fii amaani laa bi yaa ma ko abaloon. ba jeex na. <laughs>